Oustaz nongo Fall. nongo Mbaye dina jeex jeexati. mo frère comment vas-tu. ki day nemmeeku tuur fan yi <laughs> Touba la barki dem mu ngi won ci Antoine. <laughs> Oustaz ki moy nongo Mbaye bu pire. <laughs> ñu ngi ci muxtar bi de ci mbotaru vendredi bi <laughs> bubu nur mo meun bés bubu nur mo meun bés jamono la meun da ko togg bam ñor mu doog ko <laughs> mais Bouba yaa mën bés lii nag mooy midi plus ëlbëti ëlbëti kay da nga ko dëpp ah jeudi guddi ajuma <laughs> midi midi ajuma midi ajuma bëgg fàllu jant ngay Bousse. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal gars yi ñu ngi santaat Serigne Touba bu baax a baax di santaat Serigne di santaat Serigne Touba gars yi di màggal soxna jaaree tulaay mi nga xam ne tey lépp lu am ci yoonu murit yàlla ak moom la soxna jaara Bousso mi nga xam ne sell na baax na yiw na lépp lu jigéen ju baax war a mel rek soxna jaara tulaay moo ko mm. gars ñu ngi nii biir Poroxaan mm. si na te ku ne xam ne ni ñun ay taalibi Serigne Touba Xaadimu Rasuul mm-hmm. Tuubaa yi hmm. tey la ñuy màggal xasaayitu Serigne Touba yi hmm. Serigne Choy bu Mbàkke Serigne Amsatu hmm. moo ko jiite soxna Baali mu taxaa yaayu ñëpp nekk ca wet ga gaay ñu ngi nii Poroxaan egsi nañu ak jàmm Poroxaan nag le deux la comme ni ma leen ko waxee woon waaye tey bisu bisub xaside yi dinañu ñaanal ñëpp lépp lu fi waaye fas rek incha allahu rabbi Serigne Touba Xaadim dina ko def na xaside yi Serigne Touba yi kenn du ko yemaleeg lenn na ñëpp tàllal seen loxo ne amiin jërëjëf Serigne Touba lépp dina yemb lépp. Serigne Touba bëgg. gars yi di leen fàttali rek ñoo. É o bisub xasida yi Serigne Touba yi que bisu. kii nu fekk ci kii nu fekk ci waañ wi. kii nu fekkati ci waañ bi fekk. kii o fekkati ci waañ wi. waaw. fa tabaarakallaahu dundi guleet. benn waañ rek nga koy fekk. su màggal Touba jotee kër Soxna Baali nga koy fekk. dëgg la su Kazu Rajab jotee kër Soxna Baali é nga koy fekk. dëgg la waaye nag su màggal Serigne Touba bu jotee juróomi fan ci koor gi kër Soxna ali nga koy fekk kooku kan la Bijou Ngoné soo ko fekkee ndakaaru nag fenn rek nga koy fekk tabarkalla masallah te waar wax muy toog ci mën a di yëkk ci bool